mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi bàyyi xel sunu ay programme euh, di ñu suivre en direct fii ci biir wala ci diaspora bi ak seen site web euh, Tawfekh Production euh, tey jile nag nañ ko baaxoo di defee ak sunuy entretien ñi ngi fi nga xam te moom moo di rek ci ki ñuy wax El Hadji Souleymane Alioune Diallo donc waxtaan ak moom ci ponk yu bëri soxal wàllum actualité ci biir réew mi actualité nationale soxal na wàllum politique waaye tamit ku wax politique wax tamit li nga xam te moom moo soxal wàllum diplomatie jëm ci diggante diggante euh, Mali ak daan yi nga xamante ni euh, kuréel gii di CEDEAO nekk si euh, Afrique dëndu Afrique sowu jant gàll na ko si loosam incha allah daañu wax i tamit ci dunduk yenn sax ñi nga xam nag ñoom ñoo di rek diaspora bi rawatina doomu Sénégal yi di dem daani seen doole ci bitim réew di ñetti ponk yoo xam ne incha allah rabi moom la ñu fas yéene faram fàcce waxtaanee kook moom xanaa rek ma dalal ko di la wax Souleymane alin Diallo ñu ngi lay nuyu. Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu say internautes di nuyu sa auditoire euh, di kontaan trop yow wax nga dëgg euh, léeg-léeg dañ koy fàtte de waaye dew naa safaat ak marwa alaaji la alaaji Souleymane Aliou Diallo effectivement noonu la maa ngi lay nuyu di la sant bu baax di la am na solo kon euh, gis nga ko noonu ne euh, dem na Màkka ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa ñu sax sëriñ bu dun dañ ko fàtte macha allah euh, ndax moom it aussi ay partenaires lañ yàgg nañ di jëflante ci lu jëm ci wàllum média ak lépp lu soxal ci wàllum information yàgg ko fekk fépp fu mu mas a nekk ci liggéey bi door waxtaan bi ni ñu ko waxee ci wàllum politique luy ay luy ay di njàmbat jamono jilee l'arène politique est tellement polluée gis nañ jamono ji l'atmosphère comment elle est tendue gis nañ bu baax a baax jamono ji ñu nekk ci le dernier virage euh, puisque ñu ngi jëm ci euh, rek mbañ gàcce yi ci noonu moom nag ñu xàmmee ko bu baax a baax euh, ci terrain bi waaye ñu gënoon koo xàmmee ci koo xamante ni ku wax Ndakaaru wax ko di xalifa Ababacar Sall ku wax xalifa Ababacar Sall sa xel dem ci taxawu Ndakaaru Souleymane Alioune Diallo Euh, changement wala boog vest bi changé ci diggante boobu alam na ñu bëri euh, ci terrain politique bi ku la gisaan gis également terrain bi ni nga daan défendre euh, l'ex maire de Dakar di Khalifa Ababacar Sall tey ñu gis la ci wetu Soham di ni changement de veste boobu lan ma ko waral. bon c'est paradoxe la rek mën naa ne c'est un engagement personnel xam nga bu ñuy wax waxu politique am na si benn contexte boo xam ne buñ ko si dugalee rek. tey su ñu waxee changement de veste pour un politicien boo mun naa tutoyer ñenn ñi ne transhumance mooy fi ñuy waxee waxu transhumance mais bi transhumance fi nga péri bi ngay dem amul ngooñ quoi donc euh, entre parenthèses bon effectivement euh, je m'étais trop engagé par rapport à la question de de Khalifa Sall bon euh, ñu jàppoon ni que ñun dañ ko waroon accompagner durant process bi mu nekk noonu yëpp man awma kart politique prétention occuper poste ñi ma xam yëpp li ma mës a def si politique mooy ni que damay am engagement wu accompagner marqué sama présence si kii Xalifa nag ma jàppee woon ko comme suma mag muy suma xarit ma gis sama bopp si njabootam ñu échanger si lu bëri léeg-léeg ma am loo xam ne dama koy liggéey wonoon ko ko mu jugee Ndakaaru dem fekki ma ba Sevilla Euh, darajal ma si sama kanamu ay partenaire espagnol renforcer ma crédibiliser ma si sama partenaire espagnol booba dara doonul dara mu ñëw yore mairie Ndakaaru euh, di ma bàyyi xel moom ak directeur de cabinet muy suma mag di sama xarit di biraakan Kane jàppe ma doo jàppe ma rakkam bokk sama njaboot di samay waajur biraa amul fu ma féetewul donc loolu moo taxoon ma am proximité boobu ak ñooñu si processus taxaw ndakaaru ma bëri sa ñoo xam ne suñu ay wëllëre lañu ay xarit lañu bi ñu demee si si kii boobu ba taxaw ndakaaru process bi mu am noonu euh, y a les de valeur mooy les exclus euh, de du parti socialiste ak les autres issus des autres partis politiques moo formé coalition taxaw ndakaaru man dama am euh, mouvement ONG buy liggéey ci wàllu social loolu moom a rapproché woon si loolu mais je suis pas un politicard comme le terme politicien bi ñuy wax dans l'art de participer au développement euh, de la cité donc ci contexte boobu laa nekk politique mais je suis pas un politicien rempart koo xam ne euh, su dundeewul politique wala boobu politique comme période bi bëri na ñuy agité wu parce que seen traître la wala ñoo xam ne si politique bi lu ñu dundee pour mën a am ay poste wala pour exister man je suis pas ce type de politicien donc euh, sama li ngay wax waxu changement de veste ni ngeen ma daan gisee engagement bi amoon si Khalifa sàll bi ma yaakaaree ni que dañ ko tooñ liñ ko def jaaduwul ma gis ci sama bopp te dama jàpp ni que man dam ko jàpp mooy ni que ku ñuy néewal doole di ko xoqatal tooñ ko su nekkee xam naa ko mën naa ko dama koy dem taxaw fësal ni que dama koy jàppale ànd ak moom ba mu jal dëgg si gàttal Soham Wardini lu mu dund dama gis ni ko du dëgg du yoon rafetul. maanaam ko investir a xool waaw xam nga awut ci biir coalition yi y a eu beaucoup de paramètres et beaucoup de données. su ñu demee sur la base de taxaw ndakaaru bi mu bokk moom loolu moo ko def ah, euh, adjoint au maire loolu moo ko def maire te ñuy rafetlu gestion wu côté politique boobu côté politique taxaw ndakaaru SOAM a su maintenir le conseil municipal de Dakar dans une dynamique de neutralité dans une dynamique participative ba taxawu ndakaaru boobu leen yóbbu woon à la tasul loolu évidence la ba con conseil municipal bi mujj taxawu ndakaaru majoritaire ñoo ko doon gérer bo maintenant nag don politique bi am diggante yeewi askan bi taxawu ndakaaru ak choix du maire kooku am na benn process boo xam ne ñun ñëpp suivre nañ ko si jàngat si qui était retenu su nekkee lu valable la woon mooy ni que tous les maires sortants devaient être reconduits à la candidature de la mairie et je pense que ça a été effectif weddi gis bokku si ñoom ñi bokk taxaw ndakaaru ñëpp à l'exception de soime ñoom ñëpp ils ont été reconduits deuxième fait bi nga xam ne c'est à marquer puisque am na ñuy ne Soham à été abandonné par les autres mais taxaw ndakaaru dafa disloqué wu c'est pas Soham Wardini qui a été abandonné Sur les 17 maire ki étaient à taxaw ndakaaru aujourd'hui, il n'y en a que 3 qui sont là-bas. On va pas d'une sanni pierre fofu, mais c'est juste justifier position wu Soham et ñun li ñu yóbbu ci Soham ak taxaw Ndakaaru boobu ñuy wax parce que tamit il faut que ñu leeral opinion bi phase boobu am na dañ ko dégg ci ay ñenn interpellé comme quoi ni que Soham n'a pas la majorité biir taxaw Ndakaaru mais y plus de majorité biir taxaw Ndakaaru sur les 17 maires qui étaient là-bas aujourd'hui il n'y a que 4 qui sont là celui de Grand Yoff celui de Point E celui de Mermoz et celui de Dieuppeul tous les autres sont partis donc foofu amatul dara lu ñu fa wax. Euh, le fait que tey jii ñu xool euh, boo xoolee atmosphère bi gis euh, Barthélémy Diaz qui a été investi par la coalition Yewwi Askan Wi avec qui Ousmane Sonko donc apporte son soutien ak ñeneen tey jii ab Diouf Sarr ci coalition benn Bokk Yaakaar ci beneen lang ga Mame Mbaye Niang ak ñeneen ak ñeneen du du wàdd est-ce que jàppoon ni dana metti ci moom di pari risquer ci ci dem gi mu demal boppam noonu. bon ñoom ñëpp. par risqué la ñu jëm maa ngi lay ne ki amoon 17 tey il se retrouve avec 4 te ñooñu lay àndal Sonko n'a jamais fait d'élection municipale au contraire cet avantage c'est avantageux pour Sonko c'est davant c'est c'est désavantageux pour taxaw Ndakaaru taxaw Ndakaaru qui perd ces élections la loolu muy benn première lecture parlant de Soham Wardini quelle que soit l'issue de cette de, de ces élections c'est Soham Wardini ki gagne trois points laa la koy jox elle est la mère sortante aujourd'hui beaucoup de waa savent le bilan positif qu'elle défend ñu bëri xamuñu ko woon c'est à travers cette scission que les gens ont compris que c'est Soham Dakarou qui a fait beaucoup de réalisations que certains maires prétendent réaliser dans leur commune Soham ni moo waral loolu tey à travers cette campagne là ñu bëri xam nañ ko benn donc am na identité ñaar Aujourd'hui, certains pensaient qu'elle était out parce qu'on l'avait presque éliminée de la course. Elle a eu l'intelligence, l'ingénierie et la sagesse de revenir par la grande porte Buntebi. Elle est présente encore sur course bi. C'est risqué. Non, amul ben risque. Aujourd'hui, elle est candidate légitime pour avoir déposé tout le process et elle est encore là et encore elle fait une excellente campagne elle est présente te foo jaar daanaka les Dakarois lui manifestent une sympathie si elle n'avait pas pris ce risque bi ñu koy écarté mu dem toogi kon tey du doon résultat bi mu am nii capital sympathie bi mu am nii kon du ko doon am ñu ngi ci euh, ndar ndar képp bi maanaam euh, dernier virage bi euh, ban bilan ngeen mën a def que ne parce que dix 19 communes yi Dakar aussi ku ko wax xel dem ci Médina xel dem ci euh, fi nga xamante moom moo di euh, Parcelles Assainies xel dem ci li nga xamante moom moo soxal i tamit euh, Grand Médine ak yenn gox yi nga xam ne yaatu na ba ci fii di Patte d'Oie tey ji ban bilan ngeen ñu mën a tënkal boo xamante ni dañ jàpp ne kat lii daal na xel pour mën a remporter au la mais le soir au soir du 23 janvier. haut la main ces élections personne ne pourra les gagner ça il faut qu'on d'après les enquêtes que nous avons il y aura un très fort taux d'abstention ça moom c'est boo xoolee sax état bi boo xoolee état bi sax ni mu boo xoolee sa état bi ni mu tàmm organiser élection si ñetti fànn sensibilisation pour euh, la retraite des cartes électeurs daanaka bëriwul mode du scrutin de vote et autres daanaka bëriwul euh, façon mobilisation sensibilisation sur la paix process électoral daanaka bëriwul ci médias yi nag moo tax may wax contrairement aux autres élections donc loolu rek benn handicap la léegi nag quartier yooyu nga ñu cité je pense que équipe u wardi Wardini ñu ngi liggéey bunt bi mu dem am na foo xam ne amuñu fa candidat mais am na fenn foo xam ne am nañ fa candidat mais fi nga xam ne buntu bi amu fa candidat Soham nii di fa wàcc ci en personne ci li ñu gis bu nekkee capital sympathie exprimée moom la ñu dem voté kon ndakaaru Soham ni fóot na ko du koy bleu loolu moom du waxu politicien wax bu réel la parce que partout où elle est passée elle a su démontrer que elle est proche de la population xam nga lan lañ koy reprocher au contraire c'est s'être s'exprimer tardivement loolu la ko ñu bëri di di di reprocher danga waroon teel a génn waroon teel a génn bi nag da ko tënk si lu gàtt non xam xam nga lan moo ko waroon parce que ñi mu àndaloon ñoo ñu féete ko responsable dañ ko doon ne noppil nga topp nga def sa liggéey bul dem si propagande coow bi ñu ñëpp suivre nañ ko ba ñenn ñi dem ba di de lettre lettre bu mu dem déposer ñu defal ko décharge ñuy nee noo lettre bi yeggul wala lettre bi dafa forclos yooyu yëpp si ay manigance la woon mais bref loolu aujourd'hui c'est dernier nous moom si boppam nee na ce chapitre là est clos aujourd'hui c'est une nouvelle ouverture qu'il y a c'est Soham Wardini les élections municipales à Dakar et l'avenir politique de Soham Wardini loolu beneen perspective la non Soham n'a pas d'agenda politique man mën naa ko wax en tout cas su nekkee man ak moom li ñuy waxtaan te mu cëral ma ko lool te ma dégg ko mu koy wax ci biir mbooloo Soham n'a pas d'agenda politique